gouvernement Sénégal engagé woon na ko pour defal ko Medina Baye li ci ëpp am na li ci des ñu ci yoon ndax jour gàmm gi ak segu def naa évaluation bi ak commission yu bëri li may wax lii nag yàlla rek a tax ma di ko wax ak dëgg ndax man ku ma xam xam ma ci dëgg xam ma ci bëgg ma Cheikh Ibrahima di laalu commission eau ak électricité bi toog sama wet muy Cheikh Bouba waxtaan naa ak moom xamal na ma ne moom mboolem lu ñu engagé woon def nañ ko li ci des mi ci yoon commission bi nga xam ne mooy communication ñoom tam seen engagement def nañ ko li ci des mooy matériel yi Sonatel war a indi yooyu ñu ci yoon commission bi nga xam ne mooy euh, mooy AGEROUTE ci wàllu assainissement ak environnement wax nañ ma ne ma sëñ Abdourahmane Niass mbooleem lu état bi waxoon def na ko 100 pour cent ci wàllu euh, ci wàllu euh, ci wàllu bi ñi nga xam ne ñoom ñoo yore Euh, kii bi laay euh, laay waa nu ñu koy tuddee mooy assainissement bi ci wàllu Ageroute rek lañ remarqué ne ci wàllu tëli yi seen liggéey defuñ ko loolu la ma sëñ Abdourahmane wax bu moyee loolu li des ci commission bi yëpp ci ONAS ci ci topp yëpp vidange yi ñu waxoon neuf lañ rek accordé woon ci kanami gouverneur euh, ministre de l'intérieur loolu la ñu waxoon fa lañ mën a am ministre bi ne dana def ay effort wax ak ministre bi Serigne Mbaye Thiam oo na ma moom ci boppam taxaw na ci taxawaay bu rafet waa ONAS oo nañ ma ne ma accordé nañ lañ bañoo nangul nañ leen saisi danañ leen ko jox sëñ Abdourahmane confirmé ne ne ñëw na man mi itam seede laaj mi ngi ci jëkk bi di liggéey mairie Kaolack waxoon nañ ci kanam ministre bi ne engagé nañ ñeenti camion ñeenti camion yooyu recevoir naa ko man baay Baye Mamoun Niass tey jaar na ci man ONAS sëñ Abdourahmane jébbal naa ko ko kon mairie li mu waxoon ci côté yooyu def nañ ko li ci plan de circulation bi kadalika tam li ci mairie bi engagé def nañ ko keroog man ak monsieur le préfet ak ak police euh, gendarmerie ak son ak commandant ñoo ànd wër dëkk bi yëpp ci përi ci dëkk bi pour defar circulation bi li nga xam tam mooy yoon yu xat yeeg yëpp wax nañu jaaykat yi ak ñi nga xam ne ñoom ñooy xatal yoon yi pour ñu yaatal may gan a yontu bi sallallahu alayhi wasallam ñu ñëw si jàmm dellu si jàmm ñëpp nangu nañ ko boo ñëwee itam li nga xam ne moo aju ci wàllu organisation bi nga xam ne ñooy def tente yi ñooy jël bâche yi ñooy nanga moom it jot naa ko tey nee na mbooleem ñu diggee woon ci gouvernement bi jox nañ leen ko lenn rek moo des mooy tribune bi nga xam ne dafay ànd ak ay chaise te soxlawuñ ko tey soxlawuñ ko ëllëg d'habitude vingt gàmm gi ci lay ñëw te accordé nañ ko te dana ñëw ni mu daan ñëwee su ma bañee gàttal daal mbooleem commission yëpp ndax wax ju gàtt moo gën wax ju gudd yëpp jot nañ li nga xam ne moom lañ bëgg li ci des lu ci accès gul rek dafa nekk ci yoon wala nga xam ne ñi ngi ci travail ñi ngi ci liggéey bi mais pareegul kon loolu dama koy wax ngir seede ko ñun xëccoowuñ dara laajuñ dara Medina Baye ëpp na lu ne ci àdduna Medina Baye kenn mënu koo satisfaire ndax Baye li mu am ci yonent bi doy na ko bu ko état yi àdduna yëpp defaloon bu état bi xoolee dana bëgg a ngir yonent bi sallallahu alayhi wa sallam bu état bi xoolee dana bëgg a dolliwaat ngir askanu Sénégal parce que état Sénégal dafa bëgg toujours di satisfaire askanu Sénégal rawatina président Macky bi nga xam ne loolu rek mooy itteem waxtu wu nekk mi ngi dox ngir askan wi wax li may wax ni nag kenn neexaluma mi ngi dox ngir askan wi nit nag matut nañ ko jàppale ci liggéey bu mu nekk nañ ko jàppale gunge ko ci liggéey bu mu nekk ba Sénégal jëm fi mu war a jëm moo gën ñuy xeex wala ñuy yàq man ànduma ci loolu te man sama bopp changement bi nga xam ne moom la askan wi bëgg loolu ci lay dox kon nag askan wi tam bàyyi dafa naan wax ne réew du dox lu may ne nguur gi ak ak askan wi dañuy ànd kon nag nañ gunge président Macky Sall ak lu mën a xew ba mu mottali liggéeyam ci jàmm